yegsi na muy lieutenant colonel Ibrahima Ndiaye chef division communication relation publiques bu gendarmerie euh, nationale euh, mon colonel euh, maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar. Mhm. di profité ci plateau bi. Mhm. pour nuyu ñëpp tel képp kuy téléspectateur. Mhm. di nuyu waale personnel lu TFM ci turu général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie nationale. gis nañu ne yokk ngeen seen dispositif parce que at mu jot ñuy ñëw Touba dañuy yokk ndax mën nga dellu siwaat ci dispositif dispositif yi nga xam ne euh, gendarmerie jël na ko mu aju ci màggalu Touba. waaw dispositif bi euh, ren euh, commandement bi dafa yokk loxoom bu baax a baax a baax mm. xoolee am na ay axe routier yëpp yoo nga xamante ni mm-hmm. dañu jub jëm si fii si Touba mm-hmm. gendarmerie nationale daf ko téye mm-hmm. téye ko ak dispositif de jalonnement boo nga xamante ni mooy permettre pèlerins yi ñu mën a jóge seen kër ci jàmm mhm. ñëw def seen màggal ci jàmm delluwaat ci jàmm mhm. am beneen dispositif boo nga xamante ni moo nekk ci biir kam ànd ak pèlerin yi di saytu euh, lépp loo nga xamante ni képp ko nga xamante ni dafa bëgg def naka sudul noonu mhm. boo xoolee dispositif bi nag dafa jël d'abord ñi nga xamante ni ñoo nekk ci autoroute bi d'abord ñu Ila Touba ak la l'autoroute de l'avenir lépp luy route nationale ak route départementale yi nga xamante ni ñoom ñoo jëm si si si Touba. jóge Dakar la ñu jóge Saint-Louis yenn yi jóge Kaolack. Mhm. Euh, fépp foo nga xamante ni pèlerin mi ngi koy jóge di ñëw. Mhm. gendarmerie nationale def na fa dispositif bu bu am solo. Mhm. bu ngeen xoolee lu mat ñaari junni nit. ak euh, juróomi téeméer mhm. la ñu déployé mhm. ànd ko ak ay moyens yu bare bare bari mhm. pour accompagner ñi nga xamante ni ñooy pèlerins yi euh, bu ngeen seetloo bu baax ci autoroute bi dispositif boobu euh, ñi fay jaar ñoo koy gën a ràññee ak ay ralentisseur ay ñu ñuy tuddee ay chicane pour permettre popula usagers yi ñu teggi seen tànk suñu accès foofu très bien biir Touba nag lañ leen fi def waaw biir Touba dafa am ñun li ñuy wax périphérie périphérie bi la ñuy yàq xoolee biir ñeneen ñoo ko yore muy waa police mhm, mhm. donc ñoom ñoo yore biir Touba ñun ñu yor lépp loo nga xamante ni mooy accès mhm. euh, ñu jëm si si biir biir Touba maintenant nag dafa am liggéey boo nga xamante ni bu am solo du ñuy ànd ak ñoom di ko def. collaboration bi collaboration euh, mm-hmm. si ay opération yu ñuy wax opération combinée. Mm-hmm. boo xoolee bi màggal gi yëpp si. Mm-hmm. le 29 am na benn euh, opération. le 5 am na ko démb également. am na lu ñuy wax opération combinée. boo nga xamante ni police daf si ànd ak gendarmerie nationale. Uh-huh. ñuy xool lépp lu nga xamante ni. voilà di saytu luy sécurité. opération boobu sax mën nañ ci taxaw ndax defkatu ñaawte fi bëri. teg ngeen leen loxo lu jëm itam ci wàllum sinébar euh, yi ñu jëfandikoo ak euh, yu ni mel yooyu yëpp teg ngeen ci loxo. waaw loolu mooy njëriñu opération commune yooyu euh, dafay wone. Mhm. symbiose bi nga xamante ni moom moo am entre les forces de l'ordre. tout à fait benn synergie de d'ensemble. Mhm. boo xamante ni dañ koy ànd pour liggéeyandoo pour aar askan. Mhm. loolu bu ñu koy def dañuy xool fépp foo nga xamante ni. Samba Boy war nañ fa mën a nekk. ñu dem fa. jëlee leen fa. teg leen loxo jëbbal leen ñi nga xamante ni mooy autorité judiciaire. loolu moo waral ñuy def lu mel ni opération combinée. entre gendarmerie nationale ak la police. su weesoo loolu itam mon colonel euh, accident yi bëri na ren. Euh, bakkan yi ci des malheureusement bëri na gis nañ ne am ngeen présence bu tax autoroute bi mais autoroute boobu sax muccul. beaucoup d'embouteillage beaucoup d'accidents. waaw dañuy euh, commencer d'abord mm. gendarmerie nationale. di présenter ay condoléances am képp ko nga xamante ni euh, ñàkk nga sa bakkan mhm. di ñaan suñu borom bi mu xare ko ajana amiin yaa rabbi mais accident yi accident yi metti na mhm. euh, bari nañu malheureusement décompté nañ ci ay mort yu bari mhm. euh, mu nekk loo nga xamante ni nag mënoon na ñàkk Euh, boo xoolee fi mu nekk nii fi ñu toll si accident yi su ma jëlee lu mel ni moto jakarta yi am nañ si ñun si dispositif bi gendarmerie nationale yore lu mat juróom yoo nga xamante ni nii déjà ñàkk nañ si seen bakkan te loolu euh, mën na ñàkk mhm. euh, gendarmerie dafay dolli di ñaax usagers yi mhm. képp ku si sonn mhm. nga noppalu parce que njariñ loo fekk aussi dañuy jóg pour dem wuti mais wuti bi na ànd ak dal na ànd ak yar na ànd ak euh, respecter li nga mhm. xamante ni moom la la code de la route digal si kaw. ñu accompagner leen teg ay agent si kaw tali bi ñoo nga xamante ni. Mhm. duñu defuñu lu dul yombalal ñi nga pèlerin yi. Mhm. seen ñëw fi si Touba di leen ñaax. ñu déglu li ñu leen di wax. Mhm. di respecter prescription yi nga xamante ni moom la ñu leen mhm. loolu la gendarmerie nationale di di di ñaax pèlerins yi. Mhm. di ñaax usagers yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kaw tali bi di leen wax encore ñu def de la prudence ñu vigilant. pour que njaboot bi ñu yoree si seen ginnaaw oto yi. ñu mën leen a sàmmal seen bakkan. ba ñuy ñëw ci Touba def li nga xamante ni moo leen fi indi muy màggal. Euh, delluwaat ci jàmm. bilan d'étape bi lan lay doon. waaw bilan d'étape yi fi ñu toll nii. Euh, ñi ngi fexe xool ni ñuy ni ñuy jàppale. pèlerins yi ñu ñëw exercice du Touba. jàmm loolu nag euh, suñu liggéey fa muy gën a fese. Mhm. mooy si kaw tali yi. Mhm. ngeen xoolee euh, axes yëpp yi ma lim sànq. Mhm. muy ñaari autoroute di euh, route nationale yi. Mhm. benn bu si nekk bu xoolee présence gendarmerie. am na si mhm. solo lool. Mhm. boo xoolee juróomi ñaari junni juróom ak juróomi téeméeri nit yi ñu déployé. am na ay moyens yu am important yu am importance yoo nga xamante ni. ay oto la. véhicule d'intervention mais aussi matériel de sécurisation routière bu am solo am ay euh, avion ULM ultra léger motorisé yu gendarmerie nationale déployé déployé ay drone loolu yëpp pour dimbali askan yi pour que ñu mën a tegu ci kaw tali bi dem ak jàmm. Mhm. egsi ak jàmm. Mhm. delluwaat seen kër ak jàmm. dernier message lan la avant ñuy ñëw ci français bi ak soxna Naata. waaw euh, dernier message bi mooy li gendarmerie nationale di wax di ñaax population bi. di mhm. ñaax usagers yi. ñu ànd ak dal. Euh, ànd ak vigilance. ànd ak prudence xam ni. ay bakkanu doomu aadama la ñu yàpp donc bu ñu nekkee ci kaw tali képp ku ci sonn na nga taw nga noppalu boo gëmentoo nga tëdd nelaw ba yow nga soog a jëlaat sa oto mhm. euh, respecter prescription yi nga xamante ni moom la agent yi di la jox mhm. si kali bi mais li ko gën a yomb ëmb mhm. li ñuy wax le code la route bu ñu ko defee mën nañoo ñëw gàmmu si si jàmm màggal si si jàmm delluwaat si jàmm jërëjëf gendarmerie nationale di souhaiter à toute la communauté division communication ak relation publique bu gendarmerie nationale moom la ñu doon dalal léegi léegi ci kanam euh, nga dem xaar soxna Naata Mbaye incha allah moom moo fas yéene jàkkaarloo ak yow ci kanam ci français dina gën a yaatu incha allahu yi ñu koy jaajëfal bu baax télévision.